même au-delà de la classe mm. politique. parce que la société est malade la ñu wax. Mm. on est en train de trouver des solutions euh, fan euh, diagnostic bi la ñuy def non. Mm. mais on a. Ah, chacun ah, euh, a ses idées la presse en a bien sûr important. Mounir aussi a la man li ma la ñu ñëwaat. Ouais. Soyons tolérants. il a sa famille. il a décidé de procéder comme ça. parce que je nañ ko bàyyi mu yare noonu man sama njaboot man dañuy saraan télé. xëy man li muy saraan jàkkaarloo. di saraan saa njóogu di saraan Kouthia dana ci am instruction ku nekk na nga sa l' essentiel xam nga laa bëgg au final bu ñu génnee. Mm-hmm. nañu génne ay nit. nañ loolu la objectif bi. na ngay na ngay na ngay defar sa nit yaa ko xam am na koo xamante ni. kay mband fecc di tëb di dal. te la yore boobu. non mais mais non. non non malal malal malal malal moom rek non xam nga malal malal dama la ñaan rek. s'il te plaît may ma ko à part que c'est-à-dire il leur interdit les télé oui mais il laisse les enfants avec une connexion et un ordinateur. oui contrôler. waaw <laughs> contrôler contrôler. waaw mais contrôler. waaw mais non mais non. non mais xam nga. bien contrôler non non mais xam nga kaddu. non non wuyu ma sama non non non je parle même non saa euh, non. non nekk fu ne yàlla rek non non nekk fépp yàlla rek bokk. non dafa am dafa am dara lu am solo. yàlla volonté de faire dafa am dara lu am solo. Ah, xam nga xam nga un ministre de la. un ministre c'est pas Bouba Ndour c'est le eh, ministre de la République. non non. ah bien ah, sûr. waaw mais mais non non. laissez-le parler. mais on ne peut pas mënuñu dugg wax. non non allez-y Bouba. Ah, Bouba ah, dama doon dugal rek. non non dama ne c'est un non non c'est un ministre de la République. c'est important ah xam nga un ministre de la République. Euh, euh, régime bi mi ngi fi depuis douze ans. ah la responsabilité bu régime bi. et je ne parle pas tu sais la personne qui a le média privé moomal boppam. Hmm. bu neexee muy teg musique 24 heures sur 24 da ngay seetaan wala nga zappé. non non non moomal moomal mais est que mais gars yi dama ne la. tu peux avoir une telle mais non mais laissez-moi terminer mais laissez-moi terminer. mais mais pas dara mais da nga xam may wax dama une personne qui a une télé tu peux avoir une télé musicale et teg

ah 24 heures sur 24 mais c'est pas interdit. noom laa lay wax nii dama ne la moi fi ma doon bu dee charge waaw mais waxuma waxu cahier de charge yow yaa ah, indi mais quand je dis ku am sa télé bu loolu la neex nga def si. no non mais attends dafa am fu muy jaar waaw mais est-ce que mais gars yi. ça mais non. li ma doon wax xam nga man fi ma doon dem. Mm-hmm. non fi ma doon dem. Mm-hmm. mooy que on parle je parle de du média. public. Mhm. qu'il a incriminé en premier. non je ne mais non mais laisse-moi. non mais dama ne boo nekkee boo nekkee ministre de la République. tu as 12 ans de euh, nga euh, état bi pendant 12 ans. et tu n'es pas parvenu. à de la télévision nationale. loo xam ne yow ak say doom mën nga ko seetaan sa pose un grand problème. Euh, booba booba. ah non yaa ko fi wax ne. ne me fais pas ne me fais pas dire. ah yaa ne say doom du ñu seetaan RTS du ñu seetaan yeneen télé yaa ko fi wax. aucune télévision sénégalaise. mais a commencé a commencé par la RTS. mais ma ne un ministre de la République après 12 ans de truc. booba que ça pose problème. ah non ah Boubacar may tuuti foofu. Ah, ah, voilà c'est pas le ah, ministre qui te parle c'est le père de famille qui te parle. non non. mais chapeau ministre bi. munoo ko dindi. Babacar bi moo la. non non c' est le ministre de la République. ministre nga war a doon ministre. mais léegi da der der le ministre c' pas l' ministre. c' le ministre de la République. qui parle chapeau boobu chapeau boobu. ne peut pas demander à sa famille de ne pas regarder la télévision nationale après 12 ans. yow tout à l'heure waaw ni léegi man nga nekk fii jóge léegi xam nga micro da ngay wax lu la neex nit ki day wax lu ko neex xam nga wax lu ko neex non non da ni waaw nit ki nga xam ni li li muy waxtaane ci en privé waaw ak bokk bokk la ki nga xam ne day jot micro par rapport à la liberté nga doon wax quoi nga wax lu la neex waaw xam nga wax nga ko tu ne comprends pas si si si si wax nga ko tout à l'heure j'ai la pensée l'a dit oui il y a des gens ngay am li ngeen di waxtaan en coulisses. en coulisses oui oui yow. dégg naa ko. nga am sa opinion. am sa courage. di ko assumer. di ko wax. ci télé. déedéet non di wax lu la neex. ci télé non waxul lu la neex. non il n'a pas dit ça on va wax li la neex. non ak wax li nga xalaat bokkul. oui c'est ça wax lu la neex ak def lu la neex. c'est pas grave si vous avez bien précisé c'est bien. Ah, tant mais je ne suis pas d'accord.

non non dégguloo li ma la wax dama leen di. ah mais moo ko fi indi. moo ñu doo xeet ñun télé ah waay RTS la ko en commençant par la RTS. non non monsieur monsieur xam naa ni Gabriel Attal bu ko waxoon dañ ko limogé. lu leer laa lay wax nii. lu leer la barke Seydina Limam lu leer. vous allez m'écouter vous avez les mêmes missions que la RTS. non non non am na ministre de l'éducation France lan moo tax ñu changé. ah école école élémentaire. aussi bien cultivé pour savoir il faut il faut relativiser au pouvoir la woon ce que je dis ce que je dis je le dis ici et je l'assume dama ni sama njaboot man du ma leen un exemple des individus yoo xam ne pratiquement. ils n'ont aucune histoire mais déggoo na mais laissez-moi terminer sur toutes les télévisions yi ñuy jàlle là. en ah, commencer ok ok on écoute Mounir s'il vous plaît. commencer par la RTS. déedéet tous ces individus là kenn ku ci s'il vous plaît la parole depuis sànq c'est à Mounir après yow nga ñëw ci yow yéen a oh, toi la parole. bu leen changer des ah. ah, je suis désolé c'est pas le débat. voilà la responsabilité des médias dans la situation que nous vivons aujourd'hui sur le plan de la violence. oui oui oui non la télévision est violence. nous on ne fait pas dans ah, la violence. nous on ne fait pas dans la violence. de la violence mais c'est pas. yéen ñaar ñëpp ça va merci. j'ai dit j'ai dit il y a deux facteurs.